ñoom ñaar jéggi na na jël na Tapha a ngi dóor ci suuf attention internet Leewtoo TV di leen nuyu bu baax a baax te di leen jaajëfal di kontaan ci yéen chaque jour nee naa ne Leewtoo ak nii lay def saa su ne fekk champion fa mu nekk daal di toog moom ci lépp lu soxal làmb tey nag li fi am xëy na ñoo ko gisandoo sax laay wax face to face ba naroon am diggante Boy Niang numéro 2 Fils de Dégol ak Tapha Tine la géant du Baol mujjul àncu la tax àncuwul nag tungoon du teew ñi nataal ñu ngi toog Tapha Tine dinañ toog waxtaan ak moom lan moo tax face to face boobu mujjul àncu Tapha Tine ñu ngi lay nuyu. waaw ca maa ngi lay nuyu. ñu bàyyi la nga nuyu internet yi. di nuyu sa équipe ak euh, waa Leewtoo yëpp di nuyu suma staff ñu ngi taxaw muy Papa Thioune ak El Hadj ak képp kuy xelal tafaatin waa Bawol yëpp estafu Bawol mbooloo président écurie bi muy falu fay ñu koy nuyu entraîneur Mbaye Ndawaan ñu Ibra Diagne xam nga Ablaye Guèye ñoom Daouda Ngom nga xam ne mooy estafu Bawol mboolo ñoom Daouda Sarr président commerçant de Sandaga Bada Dione waaw ak waa Bawol yëpp di sant aussi samu lutteurs yi sama frère yi nga xam ne tout le temps ñu ngi ànd ak tafaatin di ko jàppale ci wàllu xam liggéey bi ak lu mu mën doon ak fans club Tapha Tine yëpp fu ñu mën a nekk waa nga xam ne ñooñu Ilimane moo leen jiite moom Ilimane maa ngi koy ziar bu baax waa nga xam ne moo jiite fans club Tapha Tine yëpp maa ngi ko nuyu bu wér ak képp kuy bëggee Tapha di nuyu waa Bawol yëpp di ziare képp kuy bëggee làmb waaw ak képp kuy defar làmb maa ngi lay ziare man Tapha di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di ñaan dëkk bi yàlla na fi jàmm yàgg te sax fi di nuyu suma wasi la sëñ Muntaxal amin yàlla na fi yàgg te wér ak bépp xalifa di nuyu ba ci suñu mbokki chrétiens yi maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar bàyyiwuma kenn bépp xalifa diine maa ngi lay nuyu waaw muy noonu nag le géant du Baol moo doon nuyoo ca noonu nag Tapha Tine balaa ñu xuus ci waxtaan la nekkoon gisatuñu ko fenn mu mel ne dafa lëlu ci nga nekkoon waaw maa ngi ci dëkk bi comme ñëpp rek comme nit ñi ni ñuy xëyee dem seen bureau. Mhm. man li mooy sama bureau suma entraînement. bu ma xëyee ci laay nekk di liggéey loolu rek amul leneen quoi. Mhm. vraiment. balaa may ñëw Tapha Tine damay laaj ñetti question nga tontu par wi wala par non Tapha Tine est gaaw a mer. da ngay gaaw a mer loolu ci bépp doomu aadama la nekk. nit ku ñu tooñ nga mer. Mhm. ku ñu tooñul doo mer. amul ku yendu suba bu ngoon te meroo wala nga kontaan. adduna moo bind noonu yàlla moo bind suñu borom lu nekk di ñaar. dangay ngay bëgg wala nga bañ wala nga mer wala nga kontaan wala nga dee wala nga dund àdduna noonu loolu loolu ci teere la nekk. teere la nekk ba tax gën gën mbindeef dafa ne ku dul bokkoo ci man. waaye ku di jàpp bokkoo ci man da ngay jàpp mer tafaatin. kon mu ngi noonu non man du ma jàpp mer man mun Moussa Fall lañ ma tuddee. Mhm. damay jéegal jéegle di jàllale. noonu laay dundee suma life quoi. est-ce que Tapha Tine fayu maanaam day venger boo ko defee mu def la. œil pour œil dent pour dent. non du ma tooñ nag parce que dama doon nit koo xam ne dañ ma yar dinaa ko wax El Hadj Souan ma ne ko man benn garabu miima rek mu ngi rafan bu léegi mu gisee rek dal may yar suma live bu mu mosee dara fa bu def dara sama papa fa la may pine fàtte ma mën na maa fàtte any time night tin day mën na maa bàyyi foofu garab googu rek bu ma ko gisee garab gi kese mën na maa yar garabu miima la mu ngi rafan tout le temps jógu fa deewul daanu demul fen mu nga fa loolu rek bu ci sama xel demee loolu kese mën na maa yar fonte nit kuy dund di ma man nii laa mel naturel du ma tooñ du ma xaste du ma saaga kenn mësuma gis may dugg ci détail def naa cinq ans de carrière kenn mësul gis Tapha Tine yàq dara ci làmb mhm. lu leer na kon mu ngi noonu. ñetti question yooyu ci biir buñ ñu duggee ci waxtaan bi naa ci xuus Tapha Tine face to face ba naroon am sa diggante ak Boy Niang ban heure nga yegg si cosaan. man bon benn affaire laa la ciy wax juleewu ma suma kër. timis bi may jógee sama kër maa ngi sol benn costume cravate. bi may ñëw ma càll si woo ne ma blouson ngay sol parce que am na sponsor nii ma ne sa booy taxaw kenn ci ñoom ñoo ko jox ma use blouson bi maa ngi ko soleen euh, suma frère Ndiaye Tine maa këram noonu la demee kon man lu ma waajoon la quoi lu ma waajoon bés bi rafet la taaral bés bi ba mu mel ni mu war a mel man looloo xam façon signature bu ne def naa ko suma live euh, kon yu mel nii bu ñu koy defati ki ko jiite muy Pape Thialis na jël ay métuwaayam jël décision yi mu ci war a jël yëpp mu am sécurité bi mu war a am moom Pape Thialis laay waxal waxuma kenn. Mm-hmm. du ma blâmer benn doomu aadama blâmer blâmer waa Kër Boña blâmer su mooy booy blâmer sumu bopp. Mm-hmm. moom Pape Thialis laay waxal ci boppam. Mm-hmm. buy defati yu mel nii na jël ay responsabilité am. parce que man xam suma ay responsabilité moo tax ma dem sama yoon du leneen. su ma estaf laa waxat woo leen wan bàyyi wan ñu ne ma lii ma mën a nekk ma dem suma yoon. mënoon naa nekk foofu taxaw xam nga booy ñu ngi commencé xeex booy xool 11h ba minuit comprendre xeex bi ma mënoon arrêté xool naa affaire bi stable ma xam ne lii du sotti du luy sotti quoi. Mm-hmm. ñu nekk foofu di yàq matériel yi jàmbur et man du ma fa taxaw. Mm-hmm. damay dem sama yoon parce que man nitu jàmm laa kenn mosuma dégg ci leen may yàq lam mosuñu maa sanctionné. Mm-hmm. ñi ñu mos a sanctionné ci làmp xam nañu seen bopp. Tapha Tine kenn mosu koo sanctionné. seen see mosuma woo réunion di ma wax lii que ce non. kon man nitu jàmm laa jàmm laa xam xam nga ci laay dox quoi. mu ngi noonu. loolu yëpp dañ ci dellusiwaat léegi mais wax ji dañ koy topp bu nekk benn par benn parce que ñu bari xamuñ nu mu demee dañuy dégg riir rek ñii di wax tëll fii ñii di wax. tëll fii ñi xam ni mu demee ñu xam ni mu demee. bari nañ ñu ngi woon foofu journaliste yi nga xam ne ay nit dégg lañu wax nañ dégg gi ba nit ñi dégg ko ña taxaw di wax te ñoo ñooñu kenn du wax ak ñoom parce que fekkewuñu ko lu ñu ci wax lu ne dañoo ñemee suñu borom. te kenn ku ne dangay ngay dee comprend comprendre nga. Mm-hmm. traayoo sa bàmmeel. Mm-hmm. lépp loo fi wax te du leer. di nga ko waxaat bu ëllëgee di ko waxaat. Mm-hmm. kon loo fekk wut maandu ca. maandu ca déglu ma dama lay expliquer ña ko fekkee. ñu ngi toog ci biir di def seen i interview yi. ñemewuñoo jóg fa ñu dem pour pourquoi pas ñoom ñu ngi koon ay caméra pourquoi ñëwuñu ñëw ñëw xool histoire bi fu mu démarré. ak naka la démarré. ba pare ñoom ñuy toog di expliquer n'importe quoi non du noonu. man loolu moom nekkoon sama problème man affaire bi maa ngi ko seetaan brigade de Grand Dakar effectivement bu toll noonu naka nga ko mën a organiser. cosaan ak brigade de police bu Grand Dakar. motut 700 mètres. te ñoom yéeguñu problème bi loolu naka la mën a nexee. loolu erreelu Pape Thialis la man dama ko koy wax. man dama bëgg ku ma respect man boo ma res boo ma joxee respect rek rey nga ma man noonu laay dundee suma life. du noonu motut 700 mètres. police Grand Dakar yéeguñu ko man maa wax ak chef bi parce que dafa am sama boy ñu arrêté woon ci biir kii bi ba trois heures du matin man maa leen lijjanti pour ñu génn du ma fenal police quoi bu ma leen fenalee na ñëw jàpp man li may wax du dëgg li ñu doon wax ñoom ñëpp daanaka ci brigade bi laa ko dégloo donc kon sawaay buy defati yu mel nii na jël ay responsabilités am comprendre ñoom police ñoo ma ne naka la ñu mën a organiser lu mel nii dajale ay champion yu toll ni yéen fii te mm-hmm. amul sécurité ñoom ci seen bopp ñëwuñu defal leen décharge bu ñu xam lan mooy yëg seen koñ mm-hmm. ngente sax boo koy organiser da ngay dem ci ci police ñu defal la décharge booy nare gaa baare ay mbedd mm-hmm. ku ne xam na ne cosaan yëngu leen son boobu affaire yooyu xama lu mel noonu bu fa amee saniwantey xeer ak foofu xam nga oto jàmbur yi fi gaar ak yéen lu mu mën a am foo jaar mu am ay yàqu-yàqu. kon sa waay buy organiser ti na teel a jël ay décisions avant. man moom laay blâme balaa mu kenn moom Pape Thialis laay waxal direct. moom nga blâme Pape Thialis dina ko dégg mais pour supporter Tapha Tine bi nga xam te ne nii dégg nañ rumeur bi daw na ñu fa demee Tapha Tine nee nga timis fekk na la ci yoon bi ba nga ñëwee yaa njëkk a yegg si Boy ñaa lan moo tax duggoo. lan moo tax duggoo problème de organisation la ñoom ñoo ma ne li ñuy li ñuy def pare ci nu may def il faut que ma xaar parce que dama ñëwoon pour remplir sama contrat nee naa la façon contrat bu ne si naa ko suma live toujours sécurité day teew toujours fu nekk ba Paris sama combat ak Balla Gaye Paris police Paris police français ñu ngi taaw sécurité affaire bi. Mhm. ñun suñu dëkk lañ nekk Sénégal li li fi war waru xew foofu. gason ma koy nuyu en passage keroog ñaata champion la dajale. Mhm. kenn àndu ci ak kenn. kenn àndu ci ak benn ful kenn àndu ci benn champion. xam nga ñooñu ëpp ñu leen tur ëppale wuñu leen dara. pourquoi pas ñun mënuñu mel comme ñoom. kere gis nga lañ fa dajale ci ay champion amul kenn ku fa yengal def nañ ñuy def xumbal ñu dem seen yoon. amul amul benn problème man fu ne def naa fa signature contrat mais itam nay am sécurité quoi. nay am li may wax benn affaire la. fu ñu ko mën di organiser tey na doon suma kër bi nekk raafan mhm. bu amul sécurité man Tapha Tine buuse wu ma mett mhm. amul leneen def naa cinq cent de carrière façon contrat bu ne tee naa ko suma live contrat quatre-vingt mille contrat quatre-vingt millions tee naa ko mhm. kon nañ respectante quoi mhm. muy jël ay décision moom Pape Thialis Faye mhm. mu ngi may dégg am na sama numéro bu ko neexee na ma woo ne ma lii ak lii ak lii bu ngeen demee balaa ngeen a dugal vidéo yi ngeen jox ko ko mu déglu ko ba pare bu ko arrangé mu déglu ko Sénégal déglu ko bu ko arrangé mu yuus ko ci suuf kenn bañ ko dégg mais man li may wax dama koy wax da koy dégg ndax Leewtoo Leewtoo TV moo la seesi bëgg leeral supporter yi seetaan Tapha Tine xamuñu lu xew ñu expliqué ku nekk am sa raison bi nga xam ne moom ngay jàpp raison bi benn affaire la samay xale dañ leen a tooñ yàgg na depuis histoire bi Sowal la commencé. ci maa ngi ci loolu. Sowal Fajut la commencé. Mm. benn maa jekk a dugg ñëw di bàkku ñoom ñu ñëw xuus suñu biir xëpp ñu suuf salax ñu suuf duma suñu booy suñu booy contrôle leen duma leen ñoom parce que dañoo dóor ndag ñoom ñu door leen bu baax ñu daw. bii même chose dañu ñëw fekk ñu gaare ñu ñëw saaga saaga moo jëkk a jib benn pompe tegu ci xeer tegu ci ñoom la. suñu booy déglu ma rek dama lay wax suñu booy riposté mu dem même chose. parce que man du ma ànd ak ay bandi salté quoi ay doomu aadama ay nit laay àndal du ma ànd ak benn bandi salté mu may topp xalaatuma ko sax bu ma nar ànd ak bandi salté ma ne la demal nga toog comprendre ay nit njaay laay àndal du ma ànd benn mandikat koo xam ne da ngay mandi demal nga resté keneen kuy def sa yëfi baadolo wala ay affaire de bandi salté yow la concerné man loolu sama yoon newu ci mais man ay nit njaay laay àndal su may frère lañu lañu nag amul ku ma ci xamul seen ker wala xaw ma sa papa xaw ma sa yaay ñoom ñëpp laa xam voilà mu ngi noonu. Tapha dégg ne Tapha ñibbi na këram dellu na da ngaa blessé woon fa am ñu blessé wu ci nga àndal. no man xam nga man man sama bopp man damay jël samay métuwaay. Mhm. comprendre nga man benn Pape calise bu jëlul ay métuwaayam man damay jël sumay métuwaay benn damay génne suma xaalis fay suma ay agent de sécurité ñu ma sécurité avant suma ay mbër di ñëw. Mhm. loolu gis ngeen ko anytime bu may def signature contrat. Mhm. parce bañ. ku ma si ci li may def loolu moom mënul nekk. benn am naa expérience wu làmb. na leer benn dinaa ut sama endroit boo xam ne kenn du ma mën a des déstabiliser ci dara. na dugg ci boppi Sénégalais yi mu leer. tafaatin ma ñu doon gis di ko jéem a convaincre ci yeneen non non du bii jéem jeeg abias beeg lépp a ngi fi mais xel mi ñoom papa ñu ngi nii ñoom El Hadj ñoom Daouda Sarr Bada ñoom ñëpp a ngi côté Tapha Tine balaa Tapha a def benn interview day toog wax ak ñoom. Mhm. leer na. Tapha Tine sa diggante ak Boy Niang laaj na ko keroog ca plateau TFM ba dina la ko laajaat yéen ñaar seen diggante lan la au fond day na ay problème personnel wala combat bi moo toll noonu. adversaire la frère la ku ma la ku ma jox cer la mhm. comprendre nga làmb moo ñu boole xëj na làmb day am coow des fois nga dugg ci combat boo xam ne day am coow mais yow na fekk nga mën koo gérer ko mhm. boo ko mënul gérer moom tout le temps nii lay demee da ngay dugg ci ay erreur nit ñi dañ dugg ci erreur après lan demee yow boo tëree da ngay xalaat. Mhm. li nga def wala li nga yàq nga waxtaan ak sa ngégenaay nga xam ne xel ne lii mën a mais na fekk nga wax dëgg gi wax li am loolu mooy li am solo man du ma tooñ kenn. ku xam tafaatin xam ne tafaatin du tooñ kenn bu ma neexee ma fu ne dem aw ma fenn sens loolu lan moo ma ko may bañ a tooñ mbër yëpp laa amal jàmm du ma tooñ kenn. tafaatin signature bi am xeex am jàmmarloo am nga retourné say locaux sa ménager woowaat la ne la pour nga dellu siwaat lan moo tax nga bañ dellu siwaat non c'est pas woo ma ne ko père du ma ñëw. Mhm. parce que boobu arrêté nañu sama benn booy Grand Dakar. Mhm. ci police bi ñu ngi may dégg ma leen fenal. Mhm. ñaar toj nañu sama benn bopp supporter ñet mooy ñi ma àndandoon sama endroit bi dem nañu ñibbi ñeent mooy ñi may xelal xelal nañu ma demal sa yoon. parce que amul sécurité fi ñu ne woon amul benn sécurité bu fa am du ma toog ñuy yàq alali jàmbur yi. xeer yi jëli waa koñ bi tat ban heure moo jot mille huit signature contrat boo huit ba fan. signatoon contrat dañ koy commencé six heures maximum balaa vingt heures ku ne dem sa yoon man loolu laa xam quoi. mais ku ci nekkoon jox nañ la heure. boo Niang numéro 2 joxoon nañ ko 21h Tapha Tine jox ko 20h30. la xew ba tax tafaatin Tine duggul ci biir. loolu loolu loolu mooy manque de organisation bi nag. loolu mooy manque de organisation. man li ma xamoon feesu fees yi ma doon def et tout avant lendemain bi lañ koy defar tout pare. 10 heures 11 heures doo fa nekk di def dara donte affaire bi 6 heures la jëm. lépp day pare mbir mi day ñëw rek installé wu. mais doo bàyyi boobu 20 heures ngay nekk di installé jox jëm bu kenn xamul. comprendre nga man bu ma juumul vingt heures lañ ma convoqué. nee naa la juleewu ma suma kër timis teel na maa ñëw taxaw. bëggoon na wax li may wax signature ci fula ak fayda dem sama yoon lool la loolu laa amoon quoi mais heureusement demul noonu. li ñu jël ci wéeru béy tafaatin dañ leen waxoon ngeen indi ay batteurs yow sa batteur yi ñëw nañ wala ñëwuñu. lépp ba tey ci manque de organisation bi la. Hmm. lépp Pape Thialis la. bu waxoon li mu war a wax teel koo wax loolu du am comprendre man ñi may tegal ñu nga dekk bu gànjaay dégguñu Dakar seen ndën nag ñoom ñëpp alba lañu dëkk comprendre nga mënoo toog bu dernier maa nga naan indi sa battre mënul nekk mm-hmm. mënul nekk man ba ma ko waxee laa ko ne man ay ñëw di bàkkoog yooyu yëpp intéressé wu mën naa ñëw xam nga def suma présent ah sol naa yere sponsor na ci sponsor bi gis boppam ma wax ci jàllale message bi ma bëgg a wax mm-hmm. amul leneen li des yëpp c'est des détails quoi face to mujjul ancu ñëpp teg nañ seen bët Tapha Tine daal di ñibbi ba mu ñibbee nag la ca xam lañ ca wax dégg nañ ko mu am ay sanctions yu la ciy xaar est-ce que xam nga ko. yan yan saaru sanction. sanction fan la jógee. ndax dañoo jàpp ne signature contrat ci contrat bi la bokk. da nga war a ñëw honorer sa honorer sa contrat. d'accord mooy li ma lay wax. Mhm. li yëpp bu Pape Thialis jëloon ay responsabilités am du am. Mhm. sanction du fa am man maa ngi xaar ku ma sanctionné. fu ñu ma woo dama leen di woyu na ma Pape Thialis sanctionné boo xam. est-ce que boobu ak léegi déggante nga ak promoteur bi. Pape Thialis man laa ko géej a dégg. Mhm. respecté naa ko trop. actuellement ci ay loxoom laa nekk. combat am laay pare. Mhm. le huit di xaar mu jot ma ñëw def na ma doon def rek ñëw teela a dem stade. Mhm. rempli sama contrat mu jeex tàkk. Mhm. mu nekk ci jàmm nekk ci jàmm. promoteurs yi bari na bu mënee continuer ñu liggéey. bu mënul continuer xam nga yàlla def jàmm ak salaam. comprendre ku ma respectal nag teg na samay combat yàlla may man nam après. mu ñëw tegaat ma kon du mën a di wut ma. mais itam xama nga day am ko te lu muy dugati suma diggante ak Tapha nañ ko teg ci yoon mu leer nañ. Mm-hmm. parce que mos mosuma dugg ci contrat mu am coow am ay bruit xam nga yu mel ni fekk ma ci quoi mosul am. Mm-hmm. daje naa fekk champion bu ne dem ba bëre combat roi de arènes. Mm-hmm. te mosul am yu mel nii. kon yan sanction la ñuy xaar moom Pape Thialis bu fekkee moom ay sanction boppam la yor maa ngi koy xaar na ne Tapha dinaa ko teg sanction tel na ko wax ci seen site bi man dinaa ko tontu balaa dara xew dinaa leen woo ngeen ñëw ma tontu sanction CNG nag maa ngi koy xaar comme que affaire bi amul woon sécurité. bu fekkente ne moom dem na CNG def ay damaanam ne leen damaa bëgg a def fees su fees ñoom waroon nañu ko laaj ana sécurité bi. avant mhm. dara di xew. Mhm. comme amul woon sécurité nag amul lu may wax fu ñu ma woo ma woo leen amul sécurité amul sécurité point barre. jéem a fu ñu ma woo bu amul CNG wax na sa staff wala. fu ñu ma wooxaat bu amul sécurité donte sama buntu kër bi nekk Réfane la Njanjaar. Mhm. quartier bu ñuy wax Njanjaar demuma man Tapha Tine bu amul sécurité leer na. loolu leer na nañu Tapha Tine naka ngay préparer sa combat. waaw mooy li ngeen ma fekk nii rek nekk ci sumay entraînement suba ak ngoon guddeeg bëccëg amatuma temps liggéey rek moo fi nekk. Mm-hmm. di xaar bés ba ñëw. ñaw séquence d'entraînement ngay def loolu nag su su ma secret la quoi ak <laughs> euh, coach parce que coach yi bëri nañ. Mm-hmm. ñi ngi ci gérer bëre bi ñi musculation bi ñi boxe bi ñi ñu ngi ci yeneen yi quoi. est-ce que Tapha Tine envisagé dem voyage pour préparer combat wala Sénégal gi nga ko préparer. non combat bu des deux mois xam nga. noo ciy voyagé di dem di ñëwaat quoi. day mhm. day parce que en général boo demee Europe wala États-Unis boo ñëwee fii da ngay def ay réglages. Mhm. te liggéey bi fii la quoi vraiment. lay wax sa adversaire bi Boy Niang numéro 2. non du amoon dara lu ma koy wax lu dul di ko ñaanal jàmm ak salaam. Mhm. te ñaan yàlla yàlla may ma ndam si kaw. waaw loolu la am lu ma koy wax waaw. dañuy waajal tëj émission bi lan ngay wax say supporters Tapha waaw di leen sant di leen gërëm ñoom ñëpp di leen wax ne. gis naa taxawaay bi vraiment ñu ngi ci sama ginnaaw ñoom ñëpp di ma jàppale. Mhm. mobilisation bi yokku na côté bu ne ñoom ñu ngi gën a organiser wu pour di waaj bés ba ñëw feesal stade bi. Mhm. xam nga di ci woo Bawol gépp waaw di ci woo aussi suñu autorité Bawol yi. ku ci mel ni Antoine Félix si Dione suñu dëkkandoo la ñoo dekk Bawol ñoom Pape Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy woo di ci woo aussi Mor ñoom Bada Dione Daouda Sarr xam nga ñoom ñu ngi organisé wu. xam nga ak maire Jibi Thiaw bu Refane ñoom Daouda tin ñëpp ñu ngi leen ci woo xam nga di wax ne Refane gépp Bawol gépp ak supporter Tapha Tine yëpp fans yëpp ñuy waaj combat bi ci jàmm ak salaam te ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ak salaam may ñu dam loolu la. li amoon kenn ñaanul yàlla mu amaat Tapha Tine dangay ma mes envoyé message sa ñaar ñoo sa supporter. ñi accompagner ak yow ci lan non violance keneen tamit def noonu comme jàmm mën a sax fépp. non violence moom ku ko xam ku xam tafaatin wala nga xam euh, bawol bawol dañu doon ay xeet yoo xam ne dañu doon ay nit ñoo xam ne dañu leen yar kenn xamul leen ci tooñ xeet yëpp laa respecté nag mais bu dee ci cadre làmb man li may wax dama koo xam bu baax maîtriser ko. façon combat bu ne am naa ko effectivement bu ne def naa ko signature contrat bu ne def naa ko mais yu mel nii franchement wax dëgg yàlla mosuma ko gis ci su may su may signature contrat samay supporter di xeexew comme nii mosul am te yëpp wallahi asim dañ leen a tooñ parce que man lépp suma kanam la des fois ay nit a ngi ciy wax wax yoo xam ne xamuñu ko man ay comédien laa leen jàppe sax wóor na yàlla parce que donc li ñuy wax maîtriser xamuñu ko donc ko nit buy wax wala boog lu mu fekkee. parce que affaire bi nii li xewoon Grand Dakar. ñi toogoon ci plateau bi noonu pour pourquoi pas man lan moom a jaaxal génnuñu xool affaire bi fan la commencé situation bi et am na ay journaliste ay ay ay ay yu taxawoon. man wi maa ngi fa woon. voilà ñoom xam nañ dëgg ji ni mu demee. pour pourquoi pas mënuñoo taxaw wax ko man loolu moom ma miti du leneen pourquoi pas mënuñoo taxaw ne lii ak lii am na ku ma ci dégg mu wax réalité bi te noonu la demee man lépp suma kanam la. man ki ma doon dawal maa ko mu ne ko gënal gënal secteur bi ñu dem ba ci beneen terrain taxaw foofu mhm. parce que du ma pare combat bu toll nii ñu xam nga ñuy toj sa bopp ak yenn ñuy rapporter combat beeg xam nga yu kenn xamul mhm. nit da ngay sylviser quoi mhm. sport la dafa war boole warul xajale ndox ki nga ko seqal na xam loolu quoi mais man xam naa lool kon moom bu ko xamoon nañ ci dem rek prochaine fois moom Pape Thialis na jël ay responsabilité am dama ko koy répété bu bëggee na ma woo téléphone. bu ma woowee téléphone nii laa ko koy wax li ma wax nag bu ngeen demee ngeen jox ko ko mu déglu ko bu baax avant mu koy dugal. bu ko arrangé mu dugal ko bu ko arrangé wut mu bañ ko dugal mais man lii laay wax point barre. dama noonu du ma wax ci benn site internet bu dul Leewtoo leer na ah. Mhm. ajo muy noonu nag Tapha Tine la wala géant du Baol. Tafatine maa ngi koy béggee bu baax a baax di ko jaajëfal moom la géant li mu wax fii leer na ku ci amoon la leer tungandu teew ñi nataal Tafatine li mu wax dégg ngeen ko li amoon nit ñi gis nañ ko na ku ci nekk bàyyi xel ci lu ñuy def ndax face to face lañu wax làmb dafa war a boole mais woto tàggale bu ñu nee sport nag kaf la foo ree indi aada indi cosaan ñiy ànd ak mbër yi nañ xam ne mbër yi lañ àndal mais dañoo war a ànd ak ñoom pour defaral leen pas ñi ànd ak ñoom pour yàqal leen sooy bëri Tapha Tine wala ngay bëri euh, Boy Niang numéro 2 nga ne voilà xaama indi violence a indi ko gite ngaas loolu amul sens enceinte bi Tapha Tine moo fay nekk ak Boy Niang numéro de kenn ku fa dugg wàllum teen lay nekk ci pind ma rek ngay yem nañu gaa yi defaraat xel yi bu baax defaraat jukko yi ah. xam ne liggéey bi ñu ñoo ko moom su baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la bonal su yàqoo ñun la yàqool du ma ne Tapha Tine du ma ne Boy Niang ñëpp gis nañ Tapha Tine wax na Boy Niang wax na nañu ñaan yàlla la yàlla yóbbuñu ci jàmm ak salaam ci la huit incha allah ñu def ko événement bu mag et que le meilleur damay sant nag di gërëm sama équipe technique bi Mansour Fall kontaan naa ci yow bu baax a baax ah Fama bég ci yow. di sant ah, waa Leewtoo TV Pape Thialis Faye jëte ko moom mi borom kër gi di ko nuyu bu baax a baax Bamba moom papa dama koy remercier administration matu Aïda ñëpp maa ngi leen di bégee bu baax a baax Mbaye Babacar borom Diourbel damay kontaan ci moom ah mention spéciale moom moom maa ne ah sama chauffeur bi 100 pour cent assurance pure et damay bég ci moom bu baax a baax di ko jaajëfal ah naan ko jàmm ci yow peace and ah. ba ëllëg incha allah beneen champion